waaw ci bërëdoor bi. waaw nominé maanaam mooy ñi ñu tànn. maanaam juróom yi nga xam ne ñoom la tànn ne ñoo ci gën a juróom yi la ñu jël jox ko rédaction sportive yépp ni leen tànn leen. Mhm. kon nag bu ñu dégg rek ma ne euh, Omar kan ñu ne moo ko jël déedéet dañu ne juróom ñii. Mhm. kan moo ci ñoom tànn ñi ñu tànn ci seen biir ñu tànn ci. Mhm. kon nag. Ni le juróom ñi était juróom yi nga xam mom lañu la sélectionné Omar Khan rëg-rëg la bu sur mer Modulo pour bu Rock Énergie Bou 2 bu école de lutte balagaï, Fran Franc bu Parcel molo, ak Chat bu école de lutte Boy Bambara juróom yoyu ñoy xëccio titre meilleur lutteur avec frappe nan la ko gagné départagé Falang troisième Omar Khan rëg avec avec 62 points deuxième Balagaï numéro 2 avec 119 points. Et le vainqueur s'appelle Modulo avec 240 points. Modulo, prix Falan, Momo Kodjel, moi, Mbeur, Minga Khamne, Mom le presse sportive tane Defco, meilleur lutteur de la saison. Nous faisons les Modulo, Mingi le 28 décembre 1985. Ton 1m80, poids digente Khaïma Digante 100. 110 kilos Je mu sais pas si nga xam ne le titre de roi des arènes